asalaamaaleykum mbokku Sénégal tey jii nag live bi ci armée yi lañ koy defee du question de yabaate wala dara ñun ñëpp fii lañ jëm si. kii nag sama copain la woon Abdou Aziz Dieng nekkoon directeur financier Money Express daa la wax de directeur financier Money Express moom moo tëdd di noppalu nii waaw yoroon ay jabaram yoroon ay doom yoroon ay oto ah kër gu ngeen ngeen ci koñ bi moom moo ko moomoon yor teraanga tey jii nii moo tëdd fii nii di noppalu ani ani alal jalaaf ani mën-mën bi moom moo tax maa ngi leen di woo yéen mbokku Sénégal di jiital monsieur le président de la république du Sénégal ñoo ngi lay ñaanal nga gudd fan mais yàgg yàgg fii ngay mujj si kon lépp looy tuumaal nit bu la politique jaral ngay ngay ngay ngeen ngeen di xeexoo ak di ŋaayoo ñun ñëpp fii la ñuy mujj si Moustapha Niass li ma la waxoon keroog sama vidéo bu rek laa lay wax mag day dee xale day dee mais dee moom ci mag lañ ko gën a te yéen ñëpp fii ngeen di mujj si waa assemblée nationale dañ leen jox baatu askan bi yéen a ngi tuumaal Ousmane Sonko est li ngeen koy tuumaal ak Serigne Bassirou Gueye procureur de la république tamit kii ngay mujjee juge d'instruction bi xaw ma nu mu tudd yow mu yor dossier bi ah ak ñoom maître El Hadj Diouf ñi nga xam ne dañuy nekk fii ni direy Lamine kii ngeen di mujjee bu fekkente ni Sonko moo def nañ ko teg si yoon mais bu fekkente ni seen appulaay taala Sonko deful bàyyi dem te mu dem Sonko lu tax waa senegal bëgg ko moom moo ko liggéey Sonko c'est l'espoir de toute une jeunesse c'est l'espoir de toute une nation nit ñaa ngi fii nii liggéeyuñu projets yi ñuy wax yi ce sont des projets yaa nga xam ne ay financement politique la boo nekkul APR wala nekkoo beneen entité politique duñ la jox gars yi bàyyi leen Sonko te yàlla tax te ngeen xam ni ëllëg yéen ñëpp fii ngeen di mujjee ci armée yi xoolal ñu tëdd fii nii ñëpp laay laay Ndiaye xoolal ñu tëdd fii nii ñëpp. kullu nafsin zaa'iqatul bàyyi leen ko tey yàlla tax ngeen xam ne ñun ñëpp fii la ñuy mujjee. kullu nafsin zaa'iqatul mawt ah. kullu nafsin zaa'iqatul mawt ah waaye yow bakkan bu ñam dund dina mos dina ñam dee de. Mhm. bàyyi leen Sonko te yàlla tax ngeen xam ne ñun ñëpp fii la ñuy mujjee. Mhm. alal ji mën-mën ji kattan ji pouvoir bi yëpp fii lañ koy bàyyi. Mhm. ani Lamine Gueye ani Senghor ani Samuel Doe ani Momar Khadafi ani Yaya Jammeh ah. ani Hitler ku ko ëppoon doole. ñoo ñëpp kan ñoo leen ëppoon doole. ñii ni perte nañ seen pouvoir nii ñëpp ñoo ngi ci biir suuf tey ah. Mhm. leen seen caaxaan bi ngeen nekkee ngeen jéem a concentré ci réew mi Macky Sall boo jeexalee nga dem te bàyyi ñëw suñu réew bu leen taal réew mi. Mhm. alal ak mën-mën a pouvoir day jeex bàyyi leen Sonko te yàlla tax yàllaa def ndaw yi bëgg ko te lu tax ndaw yi bëgg ko comportement moo tax ñu bëgg ko. yorul lu mu may ndaw ñi amul lu ñuy defal mais nit boo jubee gëm sa réew di baax. di xeex contre l'injustice moo tax ndaw yi bëgg ko waaye ku la jox ndékk dig la añ ah war nga xaa mën a gëm tamit te Sonko man gëm naa ni ah suñ ko tëjee on a raté l'occasion d'unir le sud et le reste du Sénégal maanaam daa am benn rébellion bu ci yàgg Sénégal muy la rébellion casamançaise man xamoon ni Sonko mi ni bu ko yàlla defoon mu nekk président Sénégal dina doon benn ne ratons pas l'occasion te nag kaay leen fii ma wax leen benn chose les mensonges fleurissent mais na doon jamais de fruits maanaam fen su fekkoonte ni ab ga ab garab la dina dema ah ba am tóor tóor mais meññeenteef boobu du mës a ñor bàyyi leen jaamu te ngeen xam ne yéen ñëpp fii ngeen di mujjee Abdou Aziz a ngi nii de mon ami mon frère mon ami de valeur ñoo doon ànd fu nekk ku ma xam-xam ak moom tey jii mi ngi nii jiitu si di noppalu bàyyi leen Ousmane Sonko bàyyi te yàlla tax Aymérou Gningue xaw ma lan mooy jiite président xaw ma lan groupe parlementaire ba mu demee ñuy wax affaire Ousmane Sonko du daa daanu daanu fa dee mhm. ah mhm. kii Moustapha Diakhaté ba mu fi nekk di rëy lamiñ yàlla juumlawu ko fii nii ba moom talatul affaire Ousmane Sonko si baalu la tal mhm. maître El Hadj ba muy rëy lamiñ bëgg ko toroxal lan lañ ko def gars yi ñëpp ñu fii toroxal ko ni ko yow violeur kenn du ko juñ viol gars yi nañ xool suñu diggante yàlla xam ne ñun ñëpp fii si armée li la gëm leen ni yàlla moom mooy joxe nguur ku mu ko bëgg jox la koy jox yàlla bu ne Sonko day doon président yàgg yàgg day doon président Macky ku la waxoon ni la en 2007 bi ñu lay dàq assemblée nationale 2012 yaay doon président Sénégal doo ko gëm kon bàyyi leen Sonko te ngeen xam ni yéen ñëpp fii ngeen di mujjee ci biir armée yi lii nag su leen doyee baax na su leen doyul nag def leen lu leen neex bis bu nekk ku nekk di nga mos a sa ndeyjoor te lépp loo mos a def boo dee juge yàlla dina la laaj lii nan nga ko jugé woon assemblée nationale baatu askan wi ngeen yor bàyyi leen seen majorité mécanique boobu noonu ngeen yor lu leen neex def vous êtes des députés du peuple on dit que le peuple est souverain yaa ngi dégg mën na agir directement comme il faut avoir des représentants vous êtes les représentants du peuple wasalaam yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla def jàmm ci réew mi